plateforme ànd jéego li ko wutaleeg yeneen kuréel yi mooy du ay nit ñoo ciy bokk ay kuréel ñoo ciy bokk te kuréel yi ci bokk yaatu na ndax religieux yi ñi ngi ci syndicat yi ñi ngi ci secteur informel ñi ngi ci femme chef d'entreprise ñi ngi ci femme diplômée des universités ñi ngi ci jurist yaa ngi ci ñëpp amul benn catégorie socio-professionnelle boo xam ne mi ngi dox biir Sénégal artisan yi handicapés yi mareyeurs yi pêcheurs yi ñëpp ci lañ bokk te ñëpp dañu wër Sénégal ñooñu ñëpp nag ñoo taxaw ne politique publique bi nga xam ne la ñuy woowee PSE te nga xam ne PSE amul couleur tey amul benn citoyen bu wara taxaw ne man anduma ak e wala buguma pesa ndax pesa amul couleur pesa marronul, pesa bleuwul pesa vertul pesa daf fi nek pour Sénégal am ay ngëneel yo xamne ne daf ko jaglel rewmi kep képp kuy dox ci rewmi mi ci plateforme des femmes am ay femmes politiques de toutes les obédiences PDS daf ci bok rewmi daf ci bok mais également les femmes de toutes les catégories socio-professionnelles ñun tous ñu train ngir faire ngir développement Les femmes yi fi tous en ci développement la ñuy dox moo tax ñu trois axes L'habitat, habitat santé et com habitat bi moo indi coopérative bi santé bi une indi mutuelle de santé com bi une indi unité bi nga xam ne laata loolu formation loolu lépp nag buñ ko tënkee dañu ne ñun plateforme des femmes ànd jéego dañuy ànd di dox ak jamono moo tax ñu créer site internet parce que ki ne Kédougou wala nga ne Tamba ak ñu ñi yem nekk Dakar ñoo war a bokk yem ci plateforme des femmes ànd jéego te loolu li ñu koy mën a may mooy ñuy tibbee information bi ci même point moo tax ñu créer site plateforme des femmes ànd jéego may ñaan femme yëpp kenn ku ci nek na ngay consulter page bi di ci dugg ndax hormis information yi ngay am ci plateforme bi di nga ci am information yo xamne ne dina la permettre nga xam politique yi daw bo ci bëggee yegg fan ngay jaar mais également dinañ ci def numéro vert bo xamne ne dañ koy relier ak ben centre d'assistance ndax nak jigéen ñi ñi ngi fune taxaw pour bëgg jëmal sen réew kanam te des fois du ñu am information muy ci walu foncier muy ci walu famille muy ci walu sey muy ci walu éducation loolu lepp dinañ ko teunk def ko ci numéro vert bo xamné képp ku ci am problème bo ci duggé ñu mën la jox information parce que nak li dëgg moy bu né dañu taxaw pour jàppalante pour liggéey Sénégal foog nit ñi yem